da nga maa nuyu. naka yitee. maa ngi sant yàlla bu baax. na nga def ça va. ça va yaa ngi si jàmm. waa fii tàng na de ah. ndax fii Sénégal la. yow xanaa dëkk foofu non je suis en France moi. tàngaay bi day yàgg na fi. yàgg na fi de rester là tu vois. yàgg na fi de. Ah, na nga def ça va. waxal olof olof. tu as seddo. seddo waaw oui seddo. seddo. Mhm. ñaata waaw vraiment c'est chaud et les activités. ban numéro numéro bi. 77. Hmm, waaw 438. waaw. 32. waaw 40. ñaata. cinquante mille cinquante mille fukki junni. oui ah, fukki fukki junni fukki junni. junni bari na de. <laughs> fukki junni. waaw. Hmm. fais vite là alors. may ma tuuti rek fais non. c'est un peu. may ma tuuti rek. tu Tigo. Tigo waaw oui. waaw prends Tigo. Tigo yi waaw 76. mais attends boobu 76. attends ba je vais eh, bi man kii la. expresso. expre va eh, expresso la soxla. waaw ah, la expresso la soxla. ni nga wax dëgg war de. mais dafa mel ni numéro bi dama kaa xaw a fàtte. dama kaa xaw a fàtte. parce eh, que eh, dama kaa xaw a fàtte. def xam wax la xam ku tëdd nelaw nan lañ koy def ah ñu dem jaayi li xam nga lii ni moom ñu téye ko léegi téye li téye li. kuy sama boy maa ngi xam nga lan non ba bay booy teel noonu rek xam man maa daw li ma daw gis nga ko. Ah, wax nga dëgg buñ la jàppoon foofu nga dee. waaw amul amul semmi. amul semmi waaw jox ko tey rek ci gaayam la. booy booy nax nga ma de. xam nga sa sa grand la. ñafar ñafar.